ku bëgg xam sëñ bi ku bëgg liggéey sëñ ku bëgg sëñ da ko jëlee da nga ko da nga ko jëlee ci tey mooy sëñ mooy sëñ liggéey sëñ liggéey ci tey tey mooy mooy dëgg dëgg liggéey sëñ bi. waaw léegi daal lii lii lay mujjee amaama li jeex na ma noonu. li ma bëggoon a gis lépp gis naa ko ci yéen li ma bëggoon a dégg lépp dégg naa ko ci yéen tey jii bu ma sa bu ma bu ma sañoon ku di murit dana dana dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo ma sañoon sañ jeetaay bii ku di murit dana ci bokk ma wax wax ji wax ji wax ji wax ngeen ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sañ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut bi da ngay ne fonk xasida sëñ bi mooy sëñ xasida mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom diggante ak yonent bi diggante boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi réy na liggéey Sëñ Tuubaa réy lool ndax luy luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy mooy moo ci liggéey bi mu jiitu ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñuy jéem jéem fu xarab fu yéefar yi toll bu fekkoon ab xale la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg këti xasida yi liggéey këti xasida yi kon ñooy jiitu ca kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xasida yi dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xasida yi di liggéey xasida dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba xam-xam ñëw nag jëbbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu loolu laa joon loolu loolu benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war a daa daa war na jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du yéen sëñ bee sëñ bee tawfeex sëñ bi moo leen ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo leen ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoog xel loolu looloo xew loolu loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan di déggoo lool bu ñu waxtaanee ba si si mbir di ma ne ah wax ñu ko waaye diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen ñi yéen xam li xew mu <laughs> ngoog de noonu la de kon jërëjëf jërëjëf. jërëjëf